pour waxtaan ak Sénégal pour waxtaan ak diaspora bi léegi nag ñu ngi ci réewu jàmbur ñëwuñu fii pour tooñ waaye am nañ sañ-sañ waxtaan ci jàmm salaam am nañ sañ-sañ wax àddina bi ne Macky Sall dictateur la. am nañ sañ-sañ wax àddina bi ne. Macky Sall dafa tooñ le chef de l'opposition sénégalaise teg ko ci loo xam ne du dëgg du Ousmane président Macky Sall Mouni 1500 détenus politiques du Sénégal tout du du Yol. Amen président Macky Sall Mouni Sénégal le brillant le vaillant le patriote Ngagne au

l'administration de Macky Sall a assassiné près de 100 manifestants l'administration de Macky Sall a assassiné près de 100 jeunes manifestants l'administration de Macky Sall utilise des enfants de 8 ans comme boucliers humains. l'administration de Macky Sall torture les Sénégalais en violation flagrante des conventions internationales signées par le Sénégal contre la torture te loolu nag dañ koy wax Sénégal dañ koy wax bitim réew dañuy internationaliser le combat avec maître Ngagne Demba Touré. Macky Sall li muy bañ àddina bi xam ko ñun dinañ ko wax. dictateur. Macky yii dox fii ci Maroc Macky Sall bu defoon ci Sénégal li buuru Maroc ak gouvernement Maroc def fii Maroc kon kenn ko ceebaale ci àddina bi boo ñëwee fii Maroc Maroc doomu Maroc dañuy ñëw jàng médecine Sénégal askanu Sénégal di ñëw faju fii Maroc du dugg ci loolu

réew yu mel ni Sénégal ci ndóol lay nekk ñu ngi fii Maroc